parcours am ba deux mille vingt quatre mooy na bàyyi jëm ji mu Ousmane su ko deful su ko deful comme ni ko sëñ Baara Ndiaye waxee sànq ñun li ñu ñor mooy depuis mille neuf cent soixante dafa am ak nguur gu fi nekk nekkal fii France ak ay seen i jegeñaale ak seen bopp ñu gis discours bu bees ci président Ousmane Sonko. yem ci waa réew mi tegaat ko ci yoon xale yi 2024 dinañu amal ñu organiser élection Sénégalais yi fal ki ñu bëgg a fal Ousmane Sonko dugg